léeg-léeg dafay am ñuy gaawantu bu mbir amee rek ñu tàmbalee wax wala bu mbir amee ñu ni dégg naa wala foog naa wala xalaat naa wala yaakaar naa nit mënul waxee ci lu muy foog wala li muy njort surtout bu fekkente ni dafa nekk un sujet aussi sérieux que bakkenu doomu aadama wala wér yaramu doomu aadama bala ngay addu ci dara da ngay fexe ba am ci lu la leer même ñun état bu ñuy wax ci dara li ñu ci leeragul la wax mais li nga ci léragul da ngay am mandute bayyi ba gëstu yi wëy ba yegg fi mu wara yegg nga doora joxe loo lu leer la fi ñu li ci mëna wax moy amna juroom ñetti nit yu ci ñak seen bakken ñu ngi leen di euh, wat seen ay njabot am ñent nit yo am nañ ci ay gañu gañu li ci dess enquête bi dina ko révéler may profito aussi ci lolu pour terminer wax ci luy euh, fan yi nekk ci euh, presse bi ak ci réseau sociaux yi muy ay nit yu ñuy wax ni dañu génn àdduna seen bakken dafa rot euh, fële ci euh, diggante Espagne ak boori Maroc may wax ni loolu tamit damay wax nit yi ñu tey ci nit mënul wax lu ko leerul nit mënul wax lu ko wóorul fi may waxee ak yéen nii am na ñaari téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn yoo xam ne ñi ngi ci benn centre bu nekk Maroc boo xam ne ministre des affaires étrangères matuwaay yi ci war a am yëpp ak suñu consul général ba nekk ca Dakhla jël na ko ngir indiwaat leen Sénégal c'est pas parce que gisoo nit wala c'est pas parce que nit amoo ci moom information da ngay wax ni faatu na wala nga wax ni am na ay nit yu faatu bala ngay addu ci mbir da ngay ñëw nga laaj ñi nga war a laaj ñoo nit jug joxe ci xibaar bi ñu ci war a joxe mais am na deux cent soixante-seize personnes yo xamanteni ñi ngi qui se porte très bien yu nekk ci ben centre bu nekk que ci Dakhla ministre des affaires étrangères mi ngi liggéey ak autorité marocaine yi waye ak autorité mauritanienne yi pour indi len Sénégal